di nuyu euh, monsieur Malle Sow mi tok ak ñiñ fi fekk si ñepp ci biir hôpital ndamatu ñongi sante sant responsable yi andal yëpp nak ci seen taxaway ak seen pastef ak seen xerañte ba li tay am muy mboro mo xamanteni ni danoo jóg rek pour boole seen doole ak seen xam-xam ak seen man man-man ba mën a taxawu néew ji doole ji néew ji doole ji nag ki ci jiitu mooy ki nga xam ne dafa tëdd ci lalu hôpitalam te munta jóg wala mu war a faju ba noppi yàlla dogal dooleem néew ci ay fameem ba seen loxo jotul seen gannaaw loolu bi nu ko xalaatee ñu ne daal nañu dajale li nu am ñu boole ko yóbbu ko ci ñi tëdd ci seen lali hôpital ñu xalaat ne hôpital ndaamaatu mooy première maanaam Sosial fiñ koy jëmé ci hôpital Ndaamaatu lañ koy jëké bi ñëwé euh mustapha Souran yaatal nu dalal nu ak ndawam yi nga xam ñom ñoo tok ni ci jotaay bi. ak ci seen sante ba ngi leen di nuyu tamit di leen dalal ci tru ki nga xamné moy directeur hôpital bi docteur mustapha Souran tay da ngeen fekk sax amul jotna waye mom mo waron tok fi di leen recevoir. mais rek yebal na fi euh, secrétaire am euh, madame Awa Ngom euh, madame Awa Ngom mii toog nii nga xam ne bi ngeen di soogoo bi ngeen di jëkk a ñëw fii ca moom ngeen jaaroon mu da leen doxal diggante bi ba ngeen mën a yegsi ci hôpital bi beneen xew-xew bu amoon sax même boo ci xam ne xew-xew la ci biir hôpital bi muy xew-xewu jàmm dafay yebal madame Awa Ngom mii kon ku ko mën a représenté la da ko yebal ba Dakar di ko yebal ba feneen muy dem di ko représenté moom rek bu ñëwoon tey jii ak loo leen mën a indi ci hôpital bi ngeen teg ko ci loxoom day daal di mat sëg ngeen xam ne li ngeen indi woon yegg na waaye damaa ñëw en tant que contrôleur de gestion de l'hôpital euh, ñëw fekke si ko ndax li ngeen di def dafa am solo euh, ñëw ànd ak monsieur Mass Diop bii nga xam ne lépp luy wàllu set ci hôpital bi li ñuy wax hygiène moom moo ko jiite association yu bari dañ fi daan ñëw sax dama xamul ndax seen bos bokk na ci mais bu ñu ñëwee ci Mass Diop nii la jaar di yëngatu ci wàllu set ak setal ci hôpital bi ndax loolu aussi lu am solo wàllu set ak setal dëkk boo dem wàllu set ak setal moom ci hôpital ba hôpital bi yëpp mënuñoo saytu lépp waaye ñii nga xam ne nii ay association lañu ak mbooloo yu takku di ay jeunes yoo xam ne dañoo bëgg a def dara pour le développement de leur contrée daanañ yëngu ci ay set ak setal ci hôpital yi dañ ko def di fi ñew euh, lolu aussi sax man ma ngi len ci ñaax bu fekke man ngeen ci japp parce que lu am solo la. di le ku nekk sa tour ak sa sante di ñep man sax xeyna waruma wax parce que sunu kilifa waxna na ba pare muy monsieur Malle Sow ndax mom mo yoré lepp li nga xamné moy chef contrôle de gestion moy lepp li nga xamné day dugg ci hôpital bi ak diki génné mom mo koy contrôler. Je tamit di sante euh, présidente amicale secrétaire ou directeur di suis euh, Aïda Faye mom moy pédiatrie ak sama collaborateur di Diop SEC, ak tonton bi nga hygiène yi xana di len rek parce que social bu ngeen ko comme je ko plus particulièrement service social ndax euh, li may faral di wax maladie bu ñu xëyee suba 8h ba 17 bul xam ñaata nit ñooy ñëw di solliciter ndimbal parce que jamono ji ci boppam nit ñi bëgg nañu mais dafa metti ba tax na ñun aussi hôpital bi bu doon sunu sago ku taxaw ci buntu bureau bee dañu la jàppale 100 pour cent mais doole bi moo ko mënul ndax maladie li ñuy dugal ci hôpital bi mu néew mu bare ci hôpital bi day doxal hôpital bi. ndax xëy na hôpitalu nguur gi la nguur gi dina la santal sampal hôpital jox la un budget mais nag bu la joxee budget dafa naan la leneen li nag yow nga xool nan nga koy lijjantee mooy ressources yi nga xam ne ñun ñoo koy générer suñu bopp donc te Touba dafa nekk ville bi nga xam ne développement am dafa jéggi dayoo macha allah mën nañu wax ni chaque jour day développé wu parce que dañ naan dëkku yërmande la boo fi ñëwee dañ lay abal kër ba tax na fu nekk la nit ñi di jóge di ñëw melting pot laa ko mën a tuddee mais boo ñëwee kër rek du du du besoin yu àddina di nga di nga feebar war a faju volet boobu nag c'est c'est très important si vie doomu aadama moo tax su ñu gisee ki nga xam ne dañu ciy jàppale dañ leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla li ngeen fi indi yàlla na ko yàlla ful lu bare bare bare bare bare bare euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen siyaar di gërëm tous les jeunes opposition au niveau départemental tey jëf ju rafet ji nga xam ne def ngeen ko muy journée de la paix boo xam ne lu am solo la en fait ci social bi nga xam tamit euh, commencé nañ ko activité yi ñu dem hôpitalu Ndamatou bi ñu demee tamit ñi ngi remercier euh, le docteur Souran bi nga xam ne yàlla na ci association yi nga xam ne ñoo mouvement des citoyens yi ak parti politique yi ñun ñëpp boole suñu bopp doon benn boole suñu alal moo xam mu bari ak mu tuuti lenn ci ay xéewal ak ay enveloppes yoo xam ne peut-être li ci nekk mën nañ ne bëriwul mais loolu la suñu yéene tollool ñu dem visiter hôpital bi dimbali ko malade yi nga xam ne ñoo fa nekk loolu nag la preuve que mooy waruñ bàyyi rek état bi ak hôpitaux yi wala DG yi rek ak hôpitaux yi mais population yëpp dañu war a dugal seen loxo ci santé ak sociale di gërëm tamit euh, ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk muy euh, euh, organisation ba mu solo bañ fekk ñu nga xam ne ñoo ñu recevoir muy waa pédiatrique di waa hygiène di waa sociale ñu toog fa waxtaan ak ñom tay nak biñu joggé ci lolu suñu deuxième activité bi ñu ñëw fi ci hôpital bi nga xamné wax nañ ni sax hôpital la waye dañ naan ñu ñëw fi ci 5 yi ñu dajalé fi depuis lors président Macky Sall wax ñu né daf ñuy tabaxal hôpital bo xamné sans lié lay doon lolu ku ne xamné date de libération yi ba mu jàllee ba tay waxatuñ ko mais lu ñu gën a jaaxal ñun wa Touba parce que tay suñu lii nii dañuy dénoncé parce que opposant rôle moy dénoncer en fait ñu gis ne président Macky Sall ci discours bi mu def ci fin d'année bi tuddul hôpital bi waxul sa budget bi fi mu nekk waxul dara ministre bi nga xam ne moo nekk santé bi mu jaaree assemblée nationale tuddul hôpital bi vote voté na budget d'année ba pare te waxu ci benn yoon tamit lu jëm ci hôpital bi. hôpital bi gis nañ ne date bi ñu waxoon ne moom lañ ñu koy jox jàll na léegi nag ñun dañuy wax ne Touba ku ne xam na ne ni mu sooxee ci wàllu faj ak li wër ci ginnaaw Touba ni mu toll. dañuy def nag une petite demande explication le président Macky Sall wala ñi nga fi nekkal ñu wax ñu hôpital bi lan moko calé ak lan motax ñu ñëw ba fii te ñu ko def ak bu fekkee mën nañ ko def ñu def ko parce que ni ko président Macky Sall waxe woon fii ci kanamu Serigne Touba Cheikh Sidou Moukhtar Yalla Yalla yok koy leer suñu hôpital très moderne parce que moy don lieux lier yo xamné si dañ koy def fi au niveau départemental ta ku nekk xamné Touba niveau 1 ak niveau 2 ndaamaatu rek ñoo fi am solo yeneen hôpital yi ci dess yépp dañ ci taxalaatu te population bi tay dem na ba lu mat ay 3 millions 500 mille habitants loolu du ay tiaxan Touba nag gis nañ lépp loo xam ne dafay jug di ñëw am li ko sëñ Modou Lo nga bu doon waxee mi nga xam ne moom sañ na ko wax muy musée 10 pour cent yi ak 30 pour cent yi ñoo ñu sonal léegi nag pour ñu bañ a sonn ci loolu dañu bëgg ñi nga xam ne ñoo ñu waxoon ne danañu defal hôpital bi ci voix wu des jeunes opposants yëpp ñu wax ñu hôpital bi fan la toll ak lan lañ si jublu ak lan moo nekk ba heure bii nga xam ne si fondation bi ñu fi defoon ba tey mi ngi fi te date bi jàll bu yàgg-yàgg